mooy initiative boo xam ne jëloon nañ ko depuis 2015 ci turu convergence des éleveurs républicains euh, ne dañuy engagé wu waxtaan ak suñu mbokk éleveurs yi ngir ñu fay caution président par rapport euh, ak euh, njëriñ bi ñu gis bu mu toogee ci bopp réew mi ba léegi ah éleveurs yi yeneen organisation yoo xam ne sax bokkuñu woon ci convergent ñoom itamit ñu fekk si ñi ci euh, idée boobu taxaw ci ñëpp taxaw ci am na sax ay éleveurs yoo xam ne bokkuñu ci benn organisation ñu jóg taxaw ci ba mu yegg fii mu yegg ni tey donc vraiment ñi euh, dajale woon ay nag yu bari ba nit ñi tegoon ci seen bët fële ci njum donc loolu nag bu demee ba ñu dajale ko ubbi compte jaay ko war ko jox nag borom chèque bi mot na caution bi mot na donc

Euh, mais comme dafa am commission boo xam ne moom lañ ko dénkoon aussi ñoom ñoo gën a yeeyoo wax li nga xam ne moo moo moo nekk ci biir ndax aussi dañ ko dénkoon ay commission yoo xam ne dañ doon liggéey avec euh, l'ancien ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda jàll donc ñoom ñoo war a euh, saytu ñaata lañ jaay ñaata lañ ko jaayee mais lu ëpp solo daal mot na defe naa sax dina am loo xam ne danañ ko defaat carburant pour pour jàppalewaat ko ci carburant pour campagne bi. waaw mbëbët bi mooy comme lu mu ko waxee sànq mooy que li ñu gis euh, njëriñ bi nga xam ne amal na ko secteur élevage mun na am nag euh, euh, comme ni koy président di waxee déglu ngeen ko lu mu wax Kolda nee na li mu def ci yeneen secteurs yi moo ëpp lu mu def ci élevage mais nag éleveur dafa nekk nit koo xam ne aussi loo ko defal moom du ko xeeb c'est-à-dire que parce que dañ leen xawoon fàtte Euh, boo gisee Ranch Dolli mu joxaat ko éleveurs yi créer ay forages pastoraux ay pistes de production euh, campagne de vaccination euh, criminalisation vol de bétail ak yeneen ak yeneen donc yooyu yëpp nag su loo ko nit defalee am na loo ko war a delloo te nag ay sàmm lañ sàmm nag boo nee sàmm rek. xeet yëpp ko bokk mais bu doon jàkk imaam bi pël lay doon donc moo tax bu ñu la cëralee pour nga wone ne yow kontaan alaa kulli nga joxe nag nag mooy li ñu gën a fonk ci jur gi ñu donc nag loolu moo tax ñu dajale loolu pour delloo ko njukkal ci li mu defal euh, vraiment sàmm Sénégal yëpp d'une manière général bu ci yàlla àndee ñun moom ci euh, li nga xam ne mooy ci wàllu euh, ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu càmm foofu jarul beneen candidat wala beneen mbër. di fa yàq carburant am wala di fa yàq nelewam wala di fa sonal boppam ndax waat naa que ne benn sàmm du jël kartam di wotel beneen candidat bu dul président Macky Sall buñ la ko waxee it boo demee bu bu duñ la ko sax duñ la ko sax café c'est-à-dire que lépp ko ko képp koo bu nga yàq sa programme wala wax sa wax demal nga ne damay campagne sàmm pour mu wooteel ma donc sàmm yi moom pare nañ pour élire ko au premier tour midi sax wala 11 heures et demi day fekk ñoom def nañ li ñu def Thank you.